famille Dieyna Baldé ba kon pare nañ ngir tekk lépp ci suuf ak plainte bi ñu defoon kii di Mamadou Diop Iseg nga xamante ni yoon tegoon na ko loxo di ko toppee pédophilie détournement de mineur ak corruption de mineur. ci koñ boobu kon di cité Damel bu Dakar la Dieyna nekkoon moom mi lay bàyyeekoo ba Kolda Euh, laata sax ñooy def ab mandat de dépôt ñu doon dégg rek ci ay rumeur ni famille yu Balde boobule euh, nekkoon partie civile dañoo fas yéene retiré plainte bi ñu defoon kii di Mamadou Diop ISEG euh, kon tey jii comme ni ko journal Le Soleil daal di firndele ci altine ji famille yu Dieyna Balde daal di nañu jël décision ngir nëpp nëppal mbir moomule fomm seen constitution partie civile ci dossier judiciaire bi dox diggante woykat bile am ci lu tolloo tolloog fukki at juróom-ñaar ak kii di producteur ak tuteuram ba woon di Diop Iseg ci loolu sax avocat wu partie civile bi di maître Clédor Ly eh, déposé na ab lettre de désistement ca table juge bu huitième cabinet bu tribunalu grande instance bu Ndakaaru eh, di Mamadou Seck terewul kii di Diop Iseg eh, ñu koy toppee ba tey pédophilie di détourner ay xale ba pare di leen corrompre jamono yi chambre d'accusation bu cour d'appel Dakar bi ñu jël ngir annuler procédure bi li nga xamante ne moom mooy dossier boobule ci ay source judiciaires eh, ni désistement boobule Dieyna def du am benn mujj ci procédure bi nga xamante ne eh, magistrat instructeur bii di Mamadou Seck tàmbali na ko. saay su ne rek ñu jàpp ne famille yu kii di naa jóge ngir nëpp nëppal mbir yi kii di jóob ISEC moo leen di tegal ay conditions euh, bu ñu sukkandikoo ci waa l'Observateur mi sax doon bañ doom jooju ñu ko doon jiiñ daal di na koy mujjee nangu ba ngénte ko daal di koy tuddee Seydina tanoor Diop. ay jegeñaale kii di naa ñoo xamle rek ni jamono yi mu ngi ci ay loxol famille Diop ISEC euh, boobu ci ay conditions yu mucc ayib waaye mu mel ni rek Diop la boo dalu ci ndax bu nangu woon ca ba doyal amaan na kon caabi du ko féete rek ginnaaw ndax kii di avocat Dieyna bi di maître Clédor li nee na pare woon na ngir rek naxante ak famille xale bu jigéen bi retiré seen plainte boobu bu nangu woon doom ji ba noppi daal di koy takk waaye tamit nangul woon li nga xamante ne waajuru Dieyna yi moom la ñu mbëbatoon muy rek mu dem jàngi ji wala daw làqu foofee ca Europe ci loolu kon la plainte yi daal di jub mayatul woon benn liberté kii di Diop Iseg ngir mu mën a négocier ba mën a génn ci loolee ñu ko tuumaal. te semaine yu njëkk ya ñu ko tëj kenn si ay avocawam wam di maître Alassane Cissé ñaanoon na ngir ñu annuler procédure judiciaire yi te bàyyi kii di Diop Iseg mu nekk en liberté provisoire. waaye kii di Mamadou Seck nekk juge bu huitième cabinet d'instruction bu tribunalu Ndakaaru nga xam ne moo yore dossier bile eh, daf daf ko dal di rekk rejeté jamono yi kon Dieyna balde ak Diop ISEC daal di nañu juboo di xaarandi rek yoon daal di def li nga xamante ne mooy liggéeyam ana fan la turu doom ja jóge ñu bëri rek di cay yëy yàbbi bu ñu sukkandikoo rek ci waa observateur doomu woykat bii di Dieyna ñaari tur lay wuyoo muy Seydina di turu député ba woon di Seydina Fall ñu koy wax Bougazeli nga xam ne moom la bokkaloon cellule ca prison ba ak xaritam ba woon waaye itam nekkoon loxo ndeyjooram di Tanor rekk di rek andi kii di Seydina tanoor Diop.